xam nga Malick Gakou ñan laam ñuy ay relève am mënumaa lim ñëpp mais dafa am rakkam ñu koy wax Aziz mu daj lu nekk ci biir géejawaay di sama rakk kooku bu doon sama sago rajo laay am bu ma xëy ubbi ko di wax ci moom ba ngoon bëgg naa nag li ma laaj li muy bare bare na nga ko teg di ci teg sama rakk ja Baye Ndiaye di ci teg sama rakk ja Masata di ci teg Ahmed Aydara mi nga xam ni journaliste bu nekk mel ne bëgg bëgg na mel ni moom Pape Mama Fall Bara Gueye mi nga xam ni doomu géejawaay la day jaay sax essence publicité wu kon dama wax ni géejawaay sax mooy doxal réew mi géejawaay xale bu fi juddoo am nga jom am nga xel am nga fayda kon sunu bëree bërka démb bi jom fulla ak fayda lañ ko bëree kon Malick gàkku dama ni la dafa siiw ni xorom Malick Gakou moo jant bi ñoo bokk rawaan mbër yaa ngi koy tudd ba léegi mais dafa am ñoo xam ni dañoo am complexe dañu yaakaar ne bu ñu ko tuddee à cette heure ñu génne leen seen kër wala dig jël si leen di leen ko tudd bi àll bi ne dadd Malick Gakou rek moo fi dugg di leen dimbali.